وجاد كل بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك لدي البزير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 tàmbalee ci ziar bi eh, ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi muy cheikh Mouhamadul Mountakha ibni cheikh Abdoul Bachir ibni cheikh al Khadim xalifatul an tarixatil muridiyya di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala mu gën koo kàttanal te may ko fanu gudd ànd ak wér ak talak dal ak njabootu cheikhul Khadim gépp noo ne it dañ koy defalee ki nga xam ne mooy eh, kilifa jataay bii di kër gi di cheikh Mouhamadul Muxtaar Mbacke ibni cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ibni cheikh na Ahmadul Khadim bi nga xam ne mooy eh, kilifa barab bi Cheikh Maodo Sall Karim euh, képp ku dugg Touba ba génn ko bala nga koo génn war nga ko sant gërëm ko delloo ko njukkal ndax gannaaw ndimbalal yàlla ak kattanam ak coobareem moo nu baaxee euh, jëmm ju tedd jooji di na Ahmadul Khadim ñu indi ko fii ci Touba ba mën koo ziar. Euh, barki biig mooy guddi gi Cheikh Ahmadul Khadim njëkk a fanaan Touba ci 1927 bi mu àggaleeb liggéeyam tànn dikk dëkkaale seeg boromam subhaanahu wa barab bi du nekk mooy bayti bayti euh, taarix la ci yoonu murit bayti ak li ko wër lépp mooy yoon wi ndax dafa mel ne fii euh, fi la Cheikhul Khadim euh, jote woon ndigalal dem ci liggéey bu mag boobu yi nga xëy moo loolu def ci géej gi weeru koor wa nga xëy ci la doon def itikaaf waaye barab bii nag da cee gën a doy ndax barab bi jeex yi jeexitali Cheikh Ahmadul Khadim da nga ko fi fekk muy lu mel ne ay ay waxande yoo xam ne nii moom la doon jëfandikoo bi mu nekkee ci tukki bi ak lu mel ne ay gaal waxande yu mag ak yu nii barab bii nga gis ci digg bi nga xam ne dafa am tappi rek te kenn karuwu ko ba fi toll ni suufas kese la ndax dañu ne fi la Cheikhul Khadim doon nekk di liggéey ak di fi eh, jaamu yàlla te it eh, nga xam ne mooy jàmbaari lislaam jooju di Cheikh Moussa al Karim fii la làqoo eh, moo tax kenn du karo dañ ko bàyyi noonu suuf si nga xëy suuf jeexitali seexul xadim la machine bi nga xam ne moom la moom lañ doon muule xasida yi danga nga ko gis ci biir bagaan gu mag gi nga xam ne kenn nit ko Euh, bokk na ci jëfandikukaayu sëriñ bi nga xam ne mandargaal nañ ci kàddu ne maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina moom la daan rootee daan na ci liggéey. bu ko defee muy loo xam ne nii boo ko gisee moom amut nattable ne jeexitali jeexiti Cheikh Ahmadul Xadim la bu ko defee fii nga xam ne fi la jote woon liggéey bi. Eh, war a dem Mbàkke Bari eh, def fa lu mat ñeenti weer ba juróomi weer daal di dem ci liggéey bu tedd boobu yi nga xam ne dañoo joge ci liggéey bu mag jëm ci liggéey bu mag muy eh, fukki fan ak juróom-ñett ci safar taxoon mu naan ci yow ma sabti cent mille li xidmatil muxtaari fi sari safar daana sababu xayibati an allah arada an anaala min ujaa wa an akoona shafiyan li xaw mi wa an akoona xaadiman fi daw mi guddi googee fii la ko amee woon ndigal bi ba ahlu badrin fii la ko seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñoo woon ci pàkk bi ci jàkka jooju ñuy wax jàkkay Darou Khoudoss mooy jàkkay Serigne Mbacké Madina ndax li mu ko yeesaloon moo nekk li ci kanam fii nag mooy kër gi fii mooy Darou Khoudoss fee ci sa gannaaw nga xam ne boo génnee ci penc moom mooy pencu sëñ Soy bu foofu mooy Darou Rahman foofee la Cheikh Mamadou Moussa al Karim Serigne Omar Mbacké Gelongal Cheikh Mamadou Fadal dale Basine ba Sóoratul Yaasin boo déggee ñu naan foofee la jàngee alxuraan bu mokkal ci at yu néew néew la daal di àggal foofee la jànge euh, mu bàq bàqara jëm si naa si yóbbaale at tarim am waswaasi bi mu egsee saaru baam sëriñ bi dem géej sëriñ bi yëpp euh, murit yëpp ko ci dajeel dee la ne géej maanaam ndax dina géejoo dee sóoratu baam mooy sóoratu yaasin cheikh Amadou Fadel danaan wax naan sëñ moo Modou Kabir mooy wayjur sëñ Saam bu ko sëñ Modou Kabir ne ko yow yàlla nu boole mu ne ak sóoratu yaasin ndeke booba suuratu yaasin mooy ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne juróom-ñett fukki at ak ñaar ngay am ndax suuratu yaasin juróom-ñett fukki at juróom-ñett fukki aaya ak ñaar la mu naa ko yooyu yooyu déedéet ak ak moo ñu boole mooy ñoom ñaar ñëpp juróom-ñett fukki at ak ñaar la ñuy dund ci kaw suuf moom sëñ Cheikh Ahmad Kabir Bay ak Cheikh Ahmadou kon fii mooy gànjar bu yoon wi fii mooy bayti bayti maqaama nga xam ne ay jeexital ngi fi wanag wi ci gannaaw wan wenn wanag la ci wanag yi duñ ci sori waaye wanag la ci wanag yi nga xam ne bokk na ci pàggutee fi sëñ bi bokk na ci mbakkar feggu yi li ñuy wax mbakkar feggu fii nag peeg la ab peeg la ab peeg boo bu doon jëyee jamono njëkkee boo duggee ci néegu néegu juróom benn koy ñi mag ñi daan am dangay dugg am buntu sarale am beneen ruq bu nekk ci biir boo xëy ni borom kër gi mooy xam la fa ne mooy peeg fii mooy peegu sëñ Tuubaa ci Daaru Xuddoos bagage yaa ngi nii jël nañ ko euh, euh, nga xam ne rajo Afia FM incha allah moom moo def liggéey bu rëy boobu ci ndigalal soxna Penda Ngaan Sougou mi nga ne mooy directrice bi ak euh, El Hadji Mouhamadoul Mansour mi nga xam ne mooy chef desk religieux bi El Hadji Ousseynou Thiam xam naa incha allah danañ bàyyi Ousseynou moom it moo am ay kaddu yum ci sànni ci lii ndax liggéey bi benn la dañ ñoo jox ndigalal li nga xam ne mooy mbootum Touba buñ ci mënta teg loxo it bu doon téeméer mu am ci lu mat juróom juróom benn sax dana doy sëkk ndax mooy yoon wi te yoon wi mooy daal Xuddus kii mooy yoon wi ndax fi la Cheikh moo seex moo Mouhamadou Moustapha Mbacké Falilou fii la yaroo fi la jànge Serigne Moustapha Bassirou di taw Cheikh Madou Bachir jaar na fi njabootuk lislaam gi jaar nañ fi ñooñ lislaam jaar nañ fi ñii ngànk lislaam jaar nañ fi te ki nga xam ne moo jëkk a wuutu Cheikhul Khadim ci yoon wi muy Cheikh Moustapha al Karim fii la nekkoon ba fii la wujjee boromam fii ci ruq bii fii këll bi nekk incha allah rabbi kon xam naa ne ak jàpp ndalu ko euh, rajo Afia ak ak ay technicien ak technicien yi incha allah ci Daaru Xudus ci pam bu téefi Cheikh Ahmadul Khadim lii bokk na ci gànjaruk Serigne Touba lii bokk na ci ndamam yi incha allah. seex Daaro Sa Ndiaye waaw ah ni ko waxee rek ah, noonu la demee fii mooy bayti Daaru Xudus bayti nag boo ko diggee kër la ci ci Daaru Xudus goo xam ne Serigne Touba ci boppam moo fii la nekkoon def naa wax nañ ne am na fi juróom-ñaari at ci lañ wax. wala su fekkee day na manqué juróom benn weer lay manqué ndax dégg naa am na juróom benn weer fee ca daari kaamil kon kon su fekkente ne juróom-ñaari manqué na xëy na ko loolu lay manqué ah, léegi nag mu doon fi liggéeyal borom boromam ba suñ boromam ah, def mu jóge fi dem ci tukki bi bi mu ci tukki bi itam ah, xam naa ne dellu si waar gi moom fii loolu moom léeruma waaye daal li nga xam ne daal moo fi nekk fii nii. mooy juróom-ñaari xam nga sëñ Tuubaa fu mu nekk moom dafa juróom-ñaari def na fa lu rëy loo xam ne si ne mënee su koo xayma day waay mënee su koo xam ci tolluwaay ci nattuwaay ci ay xar baax ak ak ak tawfeex ak ak ak xéwal waaw ndax moo xam ne fépp fu ma def ab jullikaay ku ko xamoon dafa siyaar te dafa julee ko ñaan te dafa teg ahmada boo dee say doog sagaru boo dee sagaru ki jaay sagaru jaari tuubaa kon lii euh, lu rëy la ah barab itam fii nga gis nii nii. Ah, fi la eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha foofu la wàcc liggéey mooy fii nii amul sax maanaam ñuy karo wala déet dañ ko de bàyyi suuf si noonu lal ci lepp bi noonu de ko barkeeloo waaw loolu daal am na fi moom ah am na ñu bari nag ñaan bagage gi moom yooyu yëpp waaye loolu moom leeru ma dara ci lu ma leer xam naa daal bagage daal bagage Serigne Touba bagaan gi it maam Cheikh Rafa comme doon na comme doon na yenu bagaan amaana rek ñu féetale ko ko man naa moom. boo moom moom mën naa moom daal naam ndax moom l bagage Sëriñ Tuubaa ay bagage sama rek lépp benn la waaw loolu daal am na am naa fi moom waaw addiye ji jëmul fenn fudul ci borom ki fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha muy Cheikh Mouhamadou Muxtaar ci mu noppee ci moom la jëm li ñu wañee nii di ko continuer ak li ñu fees barkeeloo nii ko si ko siyaare nii ci ñaari màggal yi ci ñaari màggal yi lu fi dajalew dañ koy dajale ba waññee ko ba xam limite doole ñu yëkkati ko jëbal ko si mu Moukhtar bu dul ñaari màggal yi nag ay ndongo lan ay taalibe la te doo yor suñu kii xëy na loolu ñu ci fortaatoo ama ñu ñu bu suñu kër bu dul ñaari màggal yi waaye bu dee ñaari màggal yi moom bàyyi ko rek ci suñ ci xalif bi la xalif bi la jëm noonu daal noonu daal noonu daal demee fii day ubbi sag bés bu yàlla sàkk bés bu yàlla sàkk dees na ko ubbi ci kàttanu yàlla ah bu fekkente ne dal tënk tënk dëgg dëgg dëgg xat-xat dëgg dëgg amul day ñaari moom du ñàkk ko ko ubbi du ñàkk ko ubbi ñaari sa mag bi ñu wax suñu daam bëgg bàmba dana ñëw wala su fekkee uh, am naa ngant mu ñëw fekkente ne ëmb benn ngant man ñaare maa fi jiitu bu dikkee fekk ma fi ñu bokk fi nekk rek waaw ci ci ndigal. ñun ñaar ñoo fi faral di nekk ndax moom yaakaar naa su ma juumoo def na juróom fukki at moom lu gàtt gàtt am na ko fi bu ko ëpput man nag bu àggee ci màggal gi ñu jëm di ñaar fukki fan ci weeru safar ci weeru safar la ma sëriñ bi joxoon ndigal. ndigal li ngi bàyyi ci Cheikh Moustapha mi ngi jógee ci sëñ Ahmadou Tar jaar ci Cheikh Moustapha mu ñëw ci man bu keroog ba ma ko déggee ci sama nopp dégg nga mu rëcc man lool ma xëy dem sëñ Moustapha ànd ak moom dem si Ahmadou Tar mu jox ma caabi ji ci loolu laay ñëw di ànd ak sëñ dam bi ndax su suñu baam suñu sama mag la suñu ñaari maam yi bokk nekk bàyyi waaw xam nga kon kon kon kon moom lépp lépp ñu ànd ci ànd wu rafet mu def ma def ko mag mu def ma rakk ñu ànd ñu àndandoo di di di di ni ci ndigal rek fii moom a ah, man de xam naa bu dul ñaari màggal bu dul màggal gii de ma ne bu dul ma ne mosuma fanaan te xam naa ne daamir sax naa mosu fanaan ndax fii moom wax nañ ne suñ jàmbaar ja sëñ Cheikh Mariama Ndiaye daana wax ne kat bu leen fi jant bi soyee te bu leen fi fajaru ndax fii barab bi dafa am borom waaw waaw loolu moom leer na waaw waaw noonu la demee waaw man nag euh, li ngeen ma ci wax loo ko si néew damaa sob doomu tëree laa ni waaye nag bëgguma ci war a dugg te it da ngeen di sama bokk bàyyi ko njër Dakar ñu bokk menn maam moo tax li ma ciy wax ma wax ko waaye bu dul woon loolu du ma ci tàllal sama lamiñ kon du ma ci dugal sama lamiñ ndax ñu bari ñëw na fi ak seen rajo waaye bu dëkk sama lamiñ du ma ko ci dugal ndax man bëgguma ci wax lu ma xamut lu ma xamut bëgguma ko ci wax waaw noonu dama demee noonu demee waaw ndax moom daal leer mooy leer moom ah, ku ci gën bëgg gën a xam lu wér wér wér soo demee ci Sëriñ Ahmadou Moukhtar dana la leeral loo xam ne dara du ko dindi muy lu wér bu la bu la bu la ko mënut a leeral ci boppam dana mën a la boole ku la ko mën a leeral muy leeral gu wér boo xam ne dara du ko dindi waaw bu ngeen fekkoon sama waaji nag sëñ Dame Gouba moom moom moom yàgg na fi moom te magum euh, magum taal bi la xëy na euh, ay ay xam-xam ak ajjénti moom romb na moom moom moom mën na si wax lu bare bare waaye man daal moo xam sama sama xam daal euh, du xam-xam sax waaye li ma si mën a tari wax sama lami daal foofu foofu laa la mën a yem ci waaw sant rek waaw sant rek waaw waaw sëñ bi bi nga xam nag moo jubóog yàlla suñu borom noonu boo leen dimbali rek waaw sëñ bi nga xam ne moo jubóog yàlla suñu borom noonu ko ñaan mu doon leen dimbali waaw ndax kat ak njàmbat andiwu fi andi andiwu fi kenn am am andiwu fi kenn kàttan ak ay pexe andiwu fi kenn ku fi ñëw rek sa coobare yàlla suñu borom ak xëy na nga war fee ñëw ñëw fi rek ñu ñu indee waaw mënuñu dara nag amul dara mënuñu dara xamul dara itam nag waaye nag sëñ bi ci boppam nga xam ne moo jubóog yàlla suñu borom rek moo moo ñu dimbali moo ñu dimbali mooy dimbali mooy dimbali waaw yàlla yàlla na yàlla na doole dimbali rek waaw te te màggal gi xam ñaan Cheikh Amadou Mokhtar sëñ Amadou sëñ Mountakha suñu borom yàggal ko fi kattanal ko wéral ko ba lépp ci yoonu maamu bi suñu borom defal ko ci lu te murid yi fekk ko sëñ Amadou Mokhtar bi suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam kanam ko barke sëñ yàlla mën na ko yàlla na ko def waaw nuyu itam yàlla noo ngi ñaan ci daraje Cheikhul Khadim barke suñ jàmba si ndaru si njaay suñ borom kattal nu wéral nu may noonu nu am uh, ak wér ba ba ba mën a liggéey liggéey boo xam ne si dañ nekk fii day saytu nañ ko saytu boo xam ne kenn ñu ko doon saytu kenn kenn mosu saytu lu lu ni mel waaw waaw loolu daal noo koy noo koy yalwaan yàlla ci nga xam ne moom moo jub moom moom mooy may Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba mu mu defal na ko waaw ci kattanam ci kattanam waaw loolu rek asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf li wajikal karimi awsil faraja lil maaminina wa duaqihi raja musalliyan musalliman ala nabihi بصير كل أقرب وأجنبي واللي يعطي المجرمين فرح يا من ما أني الأيا وترهب ما أعظم علي مر من بلاء يا من جميع قدمي تقبل نجي يا المجتبى بعد شراب ما شرى من من الأم الخلام يجر لهم بي لذيذ